ñu ngi jàkkaarloog sangu bu tedd bii nag di sëñ Cheikh Bintou Fall war a tënk ak moom kàddu yu mujj yi nga xam ne si ni ginnaaw ba nu jaaree ca kër ga ba jëfe ndigal la euh, ca kàddu ya fa jaar yépp waaye kàddu gi géppit genn lay doon sarak yii de dañoo jaay njural ga jënde ko taalibe koo ci dem li muy njëkk a wax mooy sama sëriñ sëñ Cheikh Bintou Fall kon kon nu ngi ñaan faal yal na la fi yàlla yàggal yal na la fi yàlla yàggal yàggal fi say rak ak say taalibe ak say soppe ci barke borom Touba sëñ Cheikh Bintou ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ Sadda jërëjëf. waaw waaw wa barakaatu. mbokki. xibaar xibaar 24 xibaar 24. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mm. seen teewaay fii ci eh, lenn si njabootu Mansour Fall. Mm. rawatina euh, ngay ñëw fii kër sëñ Abdoulaye Fall Ndar euh, ak ci kër sëñ Mour Abdoulaye Fall ci ñëw ci benn benn buntu kër ci kër sëñ euh, Abdoulaye Fall Ndar yi mhm. kër buntu këru sëñ Mour Abdoulaye Fall mu mhm. sëñ Abdoulaye Fall Ndar yàlla yàlla doole ay leer amiin amiin tax na ci barkeem amiin ndax fukki fan juróom ñaar ko buñ koree rek ci ci lay mooy bis bu delloo ci boroom ci ci weeru ci weeru sawaal mm-hmm. euh, nga ñëw fii nag nga ñëw nag doon jël liggéey suñ tubaab yi mm-hmm. muy ndogu yi mm-hmm. lool dañ digal loo xam ne tubaab da ko batale woon maam Cheikh Ibrahima sant da ko digaloon sant sant sant sant ko ko jaali siwaat fii euh, fii ci euh, keesu suñ Moodu Mamoun Fall ndax fii ak kees la ci kër Sëriñ Modou Ablaye ak kees la ci kër Sëriñ Modou laay kër kër yëpp genn kër la kenn ku nekk sa kees ak ak sam néeg dañ jàll si fi ci keesu Sëriñ Modou Mamoun Fall moom Sëriñ Modou laay mhm. mu nekk ci ngeen doon ñëw seet si liggéey yëpp suñ suñ maam Seebra ñu it fekk mu nekkaat ci liggéey boo xam ne it wuy juróom doog ko sant ba talak ko mhm. mu nekkaat it ndénkaan liggéeyam Sëriñ Tuubaa wax ko léegi sa biir wax mhm. di taxawal Serigne Touba sanc dëkk bii di Touba. mooy jàng ak jàngale ak yare ak defare defar nag dara jiituwu ci jël alxuraan def ko ci euh, dën dënu dënu doomu nga def nga nga sol ko ci ay xale euh, sëñ Mourou Mamoun nag euh, dañ ko sant bu baax ci taxawaayam ndax ci téere bi ma téye nga xam ne sëñ bi moo ko bind eh, ñoom dañ koy bind te xooluñ ko ah, ak mokkal lañ koy bind bu ñuy bind ñoom ñoom bu ñu koy bind duñ dañuy teg ne kaamel bi yor seen di bind li nga xam ne liñ mokkal la bind ba mu jeex su ko defee joxal ko sëñ sëñ topp ko waaw gis nga fii bi mu ubbee rek bi ma xale bi joxee maa ci sóot sóot Ibrahima sooti Ibrahima kon day méngoog tey. Mm-hmm. yaa ngi kër Cheikh Ibra. lay waaw kon loolu sant yàlla la. waaw waaw. alif laam miim kitaab anzalnaahu ilayka li tuxrija naas min sulumaat ila nuuri. waaw moom moom moom mi nga xam ne moom. Mm-hmm. moom moo moo wàcce. téere bi nga xam ne mooy alxuraan. wàcce na ko. ilayka jëm ci yow Muhammad sallallahu alayhi li ji ngir génn li toxruja ngir génn ak annaas nit ñi mhm. min sulumaat ci lëndëm mhm. ilan nuuru jëme leen ci leer xam nga nit ñi li ñuy wax dañ koy di seet nag mhm. ndax ku mel ku mel ni maam Seex Ibra nga bëgg a taxaw ne jàngu ak njabootam jànguñu mbir boo ciy wax dañ ciy wax ak maanute dëgg la dëgg la koy gëstu ba xam ko ndax Seex Ibra maam Seex eh, Ibra ba fi léegi léegi mu jógee téeméeraat tey juddoo ci askan woo xam ne alxuraan moo sos moo moom moo sos askan woowu muy njare waaw muy néegu bay juróomu jigéen jam jàngi ba nga xëy gis ko mi magum jëm nga naa nga bëgg na jàngul te njabootam gépp fii li nga fekk fii boo waroon bunt kër maam Cheikh Ibra Fall boo demee loolu lii lu mel ni ma nga fa xëy na maam nit ñi dañoo gën a xam Baye Fall yi liggéey dem tool ya yóbbu ay ndogu dem ci àll ba waaye kër njabootu maam Seex Fall koo dem daare alxuraan daare nga fa joo xam ne lépp lañ fay jàngale dafay jàng alxuraan dafa mokkal dafa jàng xam-xam lépp lañ ko fay jàngale ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax sant sëñ Modou Mamoun mi mm-hmm. ci fekk mu fekk fi ci ci këram. Mm-hmm. ci keesu ci mu ko waxee rek ci bi keesu suñ modom laay ci këram. Mm-hmm. sant mbooleem njabootu suñ modom laay fal gépp. Mm-hmm. bokkal seex modom laay. dañu Abdou Lahad Fall mii eh, mii seen jëwriñ ñoom seen mag. ma tàmbalee ko ci. Eh, ak mboolem ay rakkam. ak mboolem jëwriñu kër gi ak magi taalibe yi mm-hmm. ak ak waaye mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mm-hmm. li nga xam ne nag moom mooy liggéey bi nga xam ne mooy muy koor gi di ndogo yi mm-hmm. te yàlla dogal euh, tey jii di bis bi yaakaar naa bi nga xam ne ci la ñuy matal togg yi ndax ba weeru koor tàmbalee ba léegi bis bi yàlla sàkk rek euh, ñu taal ba fan yi mat bu fa ne fa ne mate bi su korte it dinañ taal ay taal yoo xam ne dañuy togg euh, moom it ko noonu ñu nga defee ci maanaam man koo tëjee kii bi euh, loolu nag maa maa ngi sant sama rakk yépp ndax euh, seen jëf ak ak jëfi taalibe yi sama sama moroomi taalibe yi rek lan doon dajale mm-hmm. di ko toggee ndog ndog yooyu kon nag eh, ndog yi eh, ndogu Cheikh Modou Abdoulaye Fall la eh, nun dañ koy taxawul dañ koy taxaw dañ koy taxaw liggéey bi rek ndax loo gis loo gis lu nekk faaw dem koy taxaw rek ndax seen seen télé bii xibaar 24 te yéen a ñëw fii di ko jël waaye mooy yéen yéen ñëw yéen ñëw da ngeen koo taxaw rek waaye nag fa fa muy egg ak ñi koy doxal yéen ñi doxal fa muy egg loola yéen ñi koy taxaw moomu leen ko waaw kon nag nun dañuy taxawal sëriñ bi liggéey bi rek di sant nag di sant ñëpp sant mboolem koo xam ne rek mas euh, jàpp na ci ak ak ku ci am yéene jàpp ci ak fi waaye mën a ne rek euh, ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ñaan yàlla di yàlla def jàmm ci réew mi ci barke weeru koor barke barkeb fii ñu fekk muy muy alxuraan suñu borom def def barke def barke def def jàmm def sutura euh, dàq mbooleem loo xam ne ñu ngi koy ragal muy feebar bi nga xam ne dafa dafa xew dafa am ne ci àdduna bi lëmbe ko ba tiital ba tiital àdduna bépp ñu koy wax covid 19 bi bi yàlla suñu borom. yàlla jëlee ko fi. yàlla yàlla moom. Mm-hmm. moom rek moo fi mën a jëlee. waaw ndax borom xam-xam yi dem nañ ba tële. Mm-hmm. waaw mm-hmm. kon loolu suñu borom day wane na moom ala kulli xaal rek moom mooy yàlla. dëgg la waaw ndax li mu si jublu nag mooy. bëgg xel yëpp rek delluwaat ci moom. ndax loo xam ne dem nañ ba ba scientifique yëpp jaaxle. Euh, médecine messin médecin yëpp jaaxle. Euh, ñaankat yi di ñaan ñëpp jaaxle kon nag bu li li bi sës rek mooy li nga xam ne ci la Sëñ Tuubaa nekkoon te mosu cee jóg mu delloo mbir ci yàlla ndax moom moo waxoon tawakkaltu alallaahi waaw wàkkeelu ci yàlla mm-hmm. kon nag nun nan delloo mbir yëpp ci yàlla suñu borom rek mm-hmm. waaw te fu waay maa nekk mm-hmm. di kilifa diine waaw way ngay ab jullit way nga wala nga gëm sa borom rek nga nga nga tàllal say loxo mm-hmm. yàlla suñu borom ñaan eh, ndax yàlla ku bëgg doomu aadama la mm-hmm. waaw ku fonk doomu aadama la mm-hmm. eh, te borom yërmande la ñaan ko tawat si mu jële ko ci àdduna bi te boo ko fi jëlee nag na ko wutale xéewal ak jàmm ji sax dàkk bu jaay Seydina Ahmad salaay salaam barke maam Seex Ibra waaw ñu ngi siyaar sunu sëriñ seen Seex Jëmb Faal ku ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko doolu la ko ay leer tawféex ak xéewal mm. loolu sama tawféexam ak xéewal ak dëgëral ko mm. ba liggéey maam Serigne Fall bi nga xam ne mm. dañ ko wane ci ginnaawam fépp fu mu ko bëgg yóbbu rek ñu ànd ñu ànd ko ñu yóbbu ko fa mu ko bëgg yóbbu te ñu làq ci ngërëmam waaw ñu ngi seexaat nag mboolem maam Serigne Fall yëpp waaw di mm-hmm. siyaaram eh, suñ sëriñ bi nga xam ne eh, war nañu gis nga xam ne moom mooy kilifa kilifa murid yëpp mm-hmm. mu Seex Ahmadul Muntaxaa ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp nag mm-hmm. bàyyiwuñ kenn kenn waaw bàyyiwuñ kenn ñu ngi siyaar ñëpp di ñaan leen ñaanal nga xam ñoom ñoom ñooy suñuy sang ñun ñooy seen taalibe <laughs> eh, dégg nga di sàkku seen i ñaan fu mu toll. di ñaan di ñoom yàlla yàggal leen fi lool. te wéral leen. waaw moom daal. Mm-hmm. da xam ne daal moom moom moom suñu xol sedd na. <laughs> waaw suñu xol sedd yow nag ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax. <laughs> di la di la sant. ndax suñu diggante diggante bu yàgg la. Mm, diggante bu yàgg la. waaw euh, ndax. ah dëgg diggante daa bu ëpp ëpp fukki yàgg na. lay dëgg la lay waaw waaw <laughs> lépp yow sant bu baax. lépp ñi ngi àndal seen si Xaadim Njaay technicien. waaw kon xam naa euh, ñu ngi ci coppaandalu émission bi euh, waaye ma wax bokki taalibe yi tamit ban ko tàmbalee ba léegi it fii leen ko fas yéenee tëjee nag fi ñu ko tëjee nag mooy indi kër sëñ Modou Abdoulaye Fall ndar bi ñu ñëwee fekk fi sëñ Cheikh Bintou Fall tey fi leen tëjee émission ndogu yi waaye gis nan euh, bi ñu ñëwee ca kër gu mag ak lépp rek li nga xam ne si ni fa lañu mbokki taalibe yi wax nañu ko fa ca ga mu doon lu am am solo euh, sëñ bi sa taalibe yi nga xam ne si ñu ngi nekk ci bitim réew ca tey ku na xam ne ni koor gi mbas mi ci nekk a tax ñu baree bari euh, dikk bi waaye ñu ngi lay déglu ca ñu ngi lay seetaan ca ñu ngi lay bàyyi xel ca sa kàddu képp lan bëgg a déglu lan ngay wax taalibe yooyu bi nekk mm-hmm. ci biir réew ak bitim réew boobu ñoom booba lañ ca dugg waaw booba lañ ca dugg waaye nag ñoom nag kon euh, nañu xam ne rek mm-hmm. sunu boroom moom mu bëggee nii jamono mm-hmm. euh, euh, tukki rek ci boppam mm-hmm. dafa metti sakkaa nag tukki si jamono fi jamono toll nii nga nekk ko ci biti waaw ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp fa fay mën a nekk ndax tey boo tuddee benn réew boo nee France wax Italie wax Amérique te waxoo feneen sax njàngat réew yi nga tudd sax mën na jàpp ñoom tuddoo leen. dëgg la waaye bu mu waxee rek cinq continent cinq continent yëpp. Mm-hmm. fu fa mën a nekk. Mm-hmm. Euh, moo xam ngay ngay sénégalais. Mm-hmm. du ma ko sax ci samay taalibe ndax ndax taalibe moom. mooy ki ki ki nga xam ne rek da ngeen ànd liggéeyal di di di liggéeyal sa euh, sunu borom. mu mu mu ngay buntam. waaye fu sénégalais nekk. ci ci biir réew mi. ak biti réew rawatina ci diaspora bi ni ngeen ko faral di waxee ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ci barke maam Cheikh la jërë ngeen jëf waa maa ngi nuyu nag sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ca France ndax moom it day def liggéey bu mel nii togg ay ndogu foofee ca France di ko di ko yóbbu ci kër sëñ Touba gi nekk Aulnay ak Taverny ajjuma jot mhm. waaw ñeenti ajjuma yëpp da ngay togg di ko yóbbu ak li jamonoy xat-xat lépp fexe na ba am autorisation mhm. ànd na ko taalibe yi togg ay ndog yóbbu ko mhm. kon nag loolu mooy ñu ngi koy nuyu sant di ko gërëm di ko ñaanal moom yàlla na ko yàgg a teewee ci barke eh, kon nag ñi ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ñaan yàlla suñ borom yàlla nañ ko teewe na ngeen di déwén jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi baax na sëñ sëñ Ndàgga sëñ euh, sëñ Sadda kon daal mu ngi noonu jërëjëf sant nan nag waaw bëgg nañ lool waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi seetaan xibaar 24 euh, mi ngi noonu ñu ngi ko àndoon ak sëriñ Cheikh Bintou Fall xalifa sëñ Modou Abdoulaye Fall ñu koy ñaanal euh, yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ci barkeb Serigne Touba bu ko defee tamit sëñ Cheikh Bintou nu ma ko waxee léegi rek moom ak rakkam yëpp rek yàlla yàggal leen fi ak mbooleem seeni taalibe ci barke boroom Touba ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla nañ fi bokk teewaat déwén ci barke Cheikh Ibrahima Fall. muy sëñ Mouhamadou Mamoun sëñ Modou Mamoun Fall nag doon koo xamante si ni sëñ bi euh, daf koo cërale ci alxuraanul karim ndax bi du ñëwee ci kër gi daara lan fi fekk daara alxuraanu karim. ca ba ñu demee ca kër géen gis ngeen sëñ bi mu may xamal ni ma sëñ Assis Fall mi ngi may xamal ni ma heure bu nu xëyee dinañ jàng kaaminu alquranul karim boole ko ak euh, ndogo yi loolu nag defe naa ni euh, sëñ Mamoun Fall mi euh, firndeel na ko tamit ndax euh, dongo yaa ngi nii ci mbaar mi ñenn ngi nii toog yor seen kaamili alxuraanu karim sëriñ baa ngi nii toog lii doon lu am solo sëñ ndax mbind mi mbind mu rafet la mbind mu wér la ca ñoom ñoo ko jàng ca fii leen ko jàngee kan moo leen ko jàngal doomi sëñ Modou Ablaye Fall nga xam ne Baye Fall la waaye nag moom léppam day alxuraanu karim defe naa ne loolu lu am solo la sëñ bi nanga def noo tudd Fallou Diouf Fallou juuf waaw fan nga jógee ñëw ci daara ji. Daaru Ngome na. waaw ah, ñaata at nga def ci ca daara ji. kër ñaar am naa woo de. am nga fukki at ak ñaar. ci daara ji. ñaata yoon nga wàcc. nga wàcc kay bari na mokkal naa de. ah nga. Mm. téere bi yaa ko bind. waaw yaa ko bind ci sa loxo. waaw ak ah, saa loolu am na solo kon sëñ Xaadim. waaw ah, eh, bi mooy sa ñetteelu kaamil. waaw alhamdulilah. jërëjëf sëñ bi naa defaay. waaw noo tudd yow waxal ca kaw. Moustapha Ndiaye. Moustapha Ndiaye. waaw Moustapha na nga def. ñaata at nga nekk ca daara ji. man juróom-ñaari at. juróom-ñaari at. Hmm. ñaata yoon nga wàcc. bëri mokkal naa de. Ah, benn yoon mokkal nga yaa ngi bind kon. mokkal naa la waaw. Ah, mokkal nga. Ah. waaw kon sëñ bi nee nga dimbali ñu ci benn aaya alxuraan. ah. waaw. wala tattabi' ahwaa'ahum wa adharhum an عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يذيبهم ببعض الذنوب وإن كثيرا من الناس لفاسقون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين جعل الله قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ay eh, la sëñ bi sëñ bi mosalaal ma ci kii ba xam ndax ndax ndax damaa xamul nag moom it ba xam sëñ bi. bisimilah aya aya sëñ Fall. Eh, aja wal jibaal fa abayna ay yaxmilnaaha wa asfaqna minha wa xamalal linsaan innahu kaana saluman jaxulan yaasimallahu munaafiqiin wal munaafiqaat wal musrikiin wal musrikaat wa yatubu llahu alal mu'miniina wal mu'minaat wa kaana <laughs> fanzurna alal xanu kéefrin. barakallah jërëjëf yaakaar naa loolu am na solo sëñ bi noo tudd yow. man Cheikh Bintou ah, yaay borom kii bi ah, waaw yow moom yow moom yaay sunu sëriñ yaay sunu xalifa. Ah, ñaata kaamil nga bind. bindee ko kaamil. ah bindee ko kaamil. Ah ah, ah ah day mbeq nii. waaw ah, kon sëñ bi waxal ak moom. lilladina amanu yahuda yahuda walladina ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddata lilladina amanu alladina qalu inna nasara dalika bi annahum minhum xishishina wa ruhban wa annahum la yastakbiruna wa isa samiu ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min addami mimma arafu min alxaq yaquluna rabbana amanna faktubna maa shahidin lahum jannatun tajri min taxti lanhar xaalidina fiihaa abadan radiyallaahu anhu wa radu anhu daalika al-fawzul aziim ولو ما سكن في الليل والنهار وهو سميع عليم قل غير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يتم وهو علي عظيم sëñ bi naa dafa ay doon tudd. man Xaadim Diouf laa tudd. ak ñaata yoon nga def ci daara ji. juróom-ñaari at la. juróom ci alxuraan gi ñaata kaamil nga bind. bind naa ñetti kaamil. bind nga ñetti kaamil waaw mokkal naa waaw. ah mokkal nga ñetti kaamil. waaw ak bisimilah kon sëñ bi. faqad dikkat dëgg ko ma soo soo yëkkoo li ma soo yëkkoo li saa man. waaw ah, bisimilah barakallah. <laughs> sama sëriñ naa def. nga tudd yow. Omar Galaye Samb. ah Omar Galaye Samb. Ah. Omar noo ngi lay nuyu bu baax. Omar foo toll ci alxuraan bi ñaata kaamil nga bind. bii la bind. ah bi nga bind nii. waaw ah. wàcc nga alxuraan ko def. aca bismillah kon nga may nu ci aaye sëñ bi zawaatu min wa na benn wa jax euh, ah, jërëjëf yaakaar naa jërëjëf euh, donga yi noo ngi leen ñaanal yàlla na leen yàlla yàggal li ngeen fi bëgg lépp ci daale ji yéen a ko xam yàlla leen ko yàlla defal ci barkeb Serigne Touba te yàlla yàggal fi it Serigne Cheikh Bintou Fall mu baax mii nga xam ne si ni moom mooy sëñ Modou Ablaye Fall tey ci kaw suuf mooy sëñ ablaay Fall ndar ci kaw suuf doon kilifa gu lawet doon ku baax koo xam si xam-xam rek mooy li ko ñor sag baax rek moo tax nga laxasaa yi dem màkkatal mu karam siyaare naa mu Muhammad te yére ya nga armaloon ba nga dikkee sa wasila sa sëriñ sa wayjur bu baax wa nga ko jox kon Fall loolu réew mépp ngeen la koy jëwe génnuk bëgg lan la xamee muy bëgg sëñ Modou Abdoulaye Fall ba xëy doon sëñ Modou Abdoulaye Fall yàlla na yéen ba oyof ci barke borom Touba sëñ Mamoun xam naa ni euh, daara ji alxuraan ji sell na rafet na euh, fu ñu toll ci xam-xam bi ak euh, xasida yi borom Touba yi naka lañ ci nekkee ak donga yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokk taalibe yëpp di jiital sunu kilifa sunu wasila sëriñ Cheikh Bintou Fall. xafisahullah wa raah eh, di sant suñu bu baax ci waxtu wu nekk defal gi muy defal tawfeex ñuy mën a am ndam ci liggéey bi ndam loo xam ne du dakk mukk mu doon loo xam ne suñu wajur moo ñu ko santoon sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar eh, luñ ci am rek moom nañ koy sante jéego yi ñu mës a doxit moom nañ ko doxal hmm, biñ ko gisatul tamit lépp lu ñu fi am ci liggéey rek lépp lu ñu fi defet sëriñ Cheikh mii moom lañ koy defal daara ji daaraama barab bi barama këram gi kërama te ndimbalam ak xaraatam ak jëfam ju rafet mësta dañ di fi ñëw du dakk benn yoon euh, alxuraan ji ñu ngi ci sant suñu borom bu baax a baax euh, dañ koy jàngale euh, di fi jàngale xam-xam waaye jàngale gi ñu ko jàngaleet nekkut loo xam ne nii mukk dañ ci wane ak ndamu lii sax sëñ bi moo bëgg ñu wane ko rek waaye yàgg na fi am bu dul benn du ñaar ci mbaaxam la amee xëy na bëgg mbokk taale bi gis ko waaye euh, nëbb gi dañoo gënal waaye ñu ngi sant su borom baax a baax mbokku taalibe yi nga gis nii nag ñoom itam mhm. wax dëgg yàlla ñëpp ci kër gi nañ bokk mhm. fi la ñu féetee di doomi taalibe yi mhm. sëriñ Fallou fii la bokk dëkk tubaatul bi mooy ñettalu kaamilam boole ko mu ngi jàng risaala ak euh, naxwul waadi xajutu saani Moussa Ndiaye mi ngi seen li tuuti tuuti mi ngi jàng euh, yaakaar naa ne muqaddamatul izziya mook suñu seex bi suñu Abdul Ahad ñoo ànd téer boobu yaakaar naa lii ñu jeexal ko war a dugg risaala xaarim Diop tamit noonu yaakaar naa léegi mu jeexal xisiya boole ko naxul waa def ngi suuf saani galaay moom noonu soriwul ci xam-xam bi day dog di dal téere sixaar lay dog dal nii rek waaye xam say farata mokkal na ko li nga xam say farata benn téere boo xam suñu alxaj ko moo ko def bu ko loolu daal xam-xam bi suñu xëyee moom la ñuy jàngale su naajee ñu doog yem ci alxuraan ji waaye ñu ngi sant suñu borom bu baax baax nag xëy na euh, àgguñ fa ñëpp yi àgg waaye li ñu jàng nag xam nañ ko te ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax waaw di ci sant suñu borom baax a baax. daara ji daara ji nu muy doxee ndax donga si ni ñu ngi ji moom. Ah. na nga xamee sëriñ Sonia Mbacke ni mu daan doxalee daaraam. Mm-hmm. Euh, gaa yu baax yi daan ko doxalee. ñun dox nu wàccuñ ko benn yoon. Mm-hmm. du internat. Mm-hmm. Euh, te du foo xam dañ fa laaj kenn dara. Euh, maanaam daal lañuy dox ma jaanan. lu ñu yàlla wërsëgal. ak sang bu baax bi ñu def ko ci waaye am nañu ay tëdduwaay yu baax ñi ngi lekk lu baax ñi ngi xewlu bu baax a baax te loolu yàlla ak ku tedd ki la kon loolu ñu ngi sant suñu bu baax a baax méttiwul ci ñoom daal su wettoon dañu ko leeral waaye méttiwul wax dëgg yàlla te yàlla moo ngi ci mën mbay am ndam ak tawfeex bu baax a baax di sant mbokk ba yëpp it te li gën am solo mooy ñi ngi sant suñu borom mosuñu bind kenn leetar ne ko may ñu ndimbal ci barab bi mës sa am lu ñu yàlla wërsëgal suñ joxe addiya ji ñu war ab Baay Faal su ko joxe ba noppi lu ñu desal def fi mm-hmm. loolu daal mooy sunu sunu warteef mm-hmm. waaye ñu ngi san sunu bu baax baax nag ci alxuraan ji mu ñu may fii xale yi di ko mën a mokkal ci lu dul benn coona mm-hmm. ndax suñu tubaab da ko ñaanoon biix di yaal yi bi laa bukkaay loolu ñu ngi koy sàmmante xam-xam bi tamit wax dëgg yàlla xale yi fi fi ne xale lu mu ndaw ndaw rek salaaw su la rombe mën laa wax lu bari fi ne fi ne kenn rek soo na koon may ma sangu farat laa bëgg tey wala nga n ko loo wax rek dala koy defal ci saasi waaw loolu xam nañ ne euh, barkeb Cheikh Ibra bu fi tàbbi la loolu ñu ngi ci sant suñu bu baax a baax ca tamit noonu la mhm. moom waaw loolu waaw jéggi <laughs> lool ba gis Ahmadu nag maanaam xam nga xam-xam <laughs> comme nit ñi ni ñu jàpp ne mooy xam-xam mhm. bokkut ak ni sëñ Tuubaa jàngale mhm. sëñ bi mbiram lépp da ko daan nëbb bokkut da koo xam ne nag xëy na euh, loolu waay wax ne Euh, maanaam xam-xam nekkul ko riwaaya euh, diraaya la xam-xam leer lay doon goo xam ne nit ki koy xam waaye du jage nag wax nii rek waaye fii ñu toll jamono nag ñun ñëpp suñ bokkoon di noppi rek mu gën a baax si ñun waaw <laughs> waaleykum salaam wa <laughs> euh, mu def hmm. hmm. moom mbégte lu rëy loo xam ne ni daal <laughs> mënuñ koo takk. ndax itam mm, euh, wuutale ko. Hmm. ak sang bu tedd bi. Euh, wuutale ko. ndax itam sëñ Modou ñëw na ci barab bi ñetti yoon. fa njëkk sant sañ sanc te booba la gën a metti lool day ñëw yàgg fa lool sax am fa toll ak ñetti waxtu sëñ bi wax dëgg yàlla mës te dañ di fi ñëw barab bi bi ñu ko sañcee def ko daara alxuraan moom moo fi njëkk a yendu boobu ab am mu ñëw yendu ba ngoon jot daal ñaan daane dana baax bi nga fàtte ba ngoon jot mu jox ñee ñaan bi ko ci loxo mii xam naa moom la ko fi ñëw nag ñun loolu am nañ ci mbégte ñëw gi nag du tey rek mës dañ di fi ñëw comme li ma la waxoon di di ci sonn di ñu baax ay loolu ko ci sant bu baax a baax ndax day dem ba loo wax rek mu ne wax ko maamun kon loolu ak cant la koo xam ne doy na waar bañ a ko jàng alxuraan sax su ko waxee dara moom loolu du ko doy faw ma saytul ko wala mu xoola ko ko moom mu doog ci am mbégte mu loolu muy lu yàgg loo xam ne <laughs> jéggi na dayoo waaye ñu ngi koy ñaanal moom it leer yi mu am ak leeri sëñ bi yàlla gën leen a baaxee gën ñoo defal tawfeex ñu gën a jekku ndigal gën a jekku mokkal gi gën a jekku xam-xam bi eh, te it yàlla dimbali ba yar ak dal ak euh, aku teggin gën a euh, gën a ñëw ci ñun bu baax ndax loolu mooy sunu bàkk moom nañu xamee waaleykum salaam wa rahmatullah suñu sàdd jërëjëf jërëjëf Fall jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi euh, sëñ Mahamadan kontaan nan bu baax yow ñu ngi lay ñaan la yàlla na la yàlla defal jàmm ndax ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lii la bëgg ci dëkkam bii dëkk xanaa xamoo Touba daara la sëñ Tuubaa li mu fi gën a bëgg mooy toog di jàng alxuraan ak di ko jàngale kon nag tey bu ñëwee kër sëñ Modou ablaay Fall Ndar ah fekk fi xalifaam sëñ Cheikh Bintu Fall mu baax nii rakkam yu baax yi toog nii boo demee kër gu màgg ña nga tas kaamil bi di jàng alxuraan kër doomi sëñ Modou Ablaye Fall yëpp foo dem daara la moom it ngi jàng alxuraan ak di ko jàngale